bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm ci seen chaîne bi di Leader TV di wax ni bu leen fàtte abonné loolu ñu ñëw ak yéen ci ngi siy njëkk stade stade moom ma nga fesal l'international sénégalais yi ñu ngoon ko xamit ñoom ñaar ñooñee ñoo ngi wane seen bopp foofee sa ñoom ñaar ñoo ngi doxal foofee sa Chelsea en di préparer Premier League ba foofee sa Angleterre journal bi mi ngi bind fesal beneen l'international journal bi mi ngi bind fesal naan kii di Idrissa Gana Gueye daraam doxagul ci saison bi moom Idrissa Gana Gueye mii ginnaaw bi nga xamee ne ay rumeur ñoo ngi jug ñi naan day jàllu Everton googee nga xam ne foofu la nekk ñi naan Liverpool la jëm ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk beneen l'international sénégalais ñu gën xam turu Bamba Dieng moom Bamba Dieng mii nag digganteem ak club bii di Olympique de Marseille neexootul gannaaw bi nga xamee ne Bamba Dieng mii saison bii ñu génne ma nga Olympique de Marseille googee ba léegi foofu lay nekk mais Bamba Dieng mii nag waa Olympique de Marseille moom moomee moo soxlaatul l'international sénégalais bii di Bamba Dieng moo tax ñoo ngi cooy fekk ay kàddu kookee nga xam ne mooy Seydou Bokar Seck moo nekk agent Bamba Dieng muy xam le naan kii di Bamba Dieng moo bëgg des fii pour préparer saison moom mais préparer coupe du monde bi nga xam ne war na ci ànd ak équipe bii Sénégal mais nag moom Bamba Dieng mii nag gannaaw bi nga xamee ni agent mi ngi xam ne naan gannaaw bi nga xamee ni waa Olympique de Marseille dañ ko bëgg a jaay bëri na club yoo xam ne bëggoon nañ ko am na club bu mag boo xam ne woo na ko ba waxaale ko mais kii di Bamba Dieng moom moo bëgg a des foofee sa Olympique de Marseille tension ba nag ma ngay continuer gannaaw bi nga xamee ni fan club club Olympique de Marseille yooyu ñoom dañu bëgg l'international sénégalais bii des foofee mais kii nga xam ne mooy tàggat waa Olympique de Marseille moom moo bëggul l'international sénégalais tey dañuy bàyyi Bamba Dieng moomee dem ci beneen Ngagne Diop Ngagne Diop mii nag moo nekk ki nga xam ne mooy tàggat suñu gaynde basket yu góor yi moom Ngagne Diop mii mi nga xam ne naan afro basket boobee nga xam ne suñu gaynde yu góor yi fa la ñu bëgg a sama bëgg-bëgg mooy gagné afro boobee ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk suñu gaynde locaux yooyee nga xam ne war nañu jàkkaarloo équipe bii di Guinée ñoo kookee nga xam ne mooy seen capitaine mi nga xam ne naan dañu bëgg dem ale ba dóor Guinée googee nga xam ne retour bi dañ koy confirmer fii ci Dakar qualifié daldi dañuy jubali yéenekaay bi groupe Futurs Médias ñu gën ko xam ci record moom record mii nag mi ngi fesal l'international sénégalais bi champion d'Afrique bii di Bamba gannaaw bi nga xamee ne mi xam ne naan kii di Bamba waa Olympique de Marseille neexootuñu moom Bamba mii gannaaw bi nga xamee ne ñetti match yi nga xam ne waa Olympique de Marseille doon nañ ko def moom l'international sénégalais bi jéewu ci benn match moom l'international wax nañu clan boobu nag journal bi ñan lay waxal tey journal bi moo dégg xam ni mooy l'agent wu Bamba Dieng gannaaw bi xamee ne mi ngi doon def benn interview di xam naan Bamba bi bi ko waa Olympique de Marseille ne dañ koy jaay bari club yi nga xam ne bëggoon nañ ko mais moom Bamba Dieng moom moo bëgg des Olympique de Marseille suyee saison bii di ñëw bëgg des Olympique de Marseille pour préparer coupe du monde boobee nga xam ne da si ànd ak équipe Sénégal bii ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk l'international sénégalais bi champion d'Afrique bii di Kalidou Koulibaly moom Kalidou Koulibaly nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni kookee di Kalidou Koulibaly ma ngi préparé saison am ànd moom Kalidou Koulibaly mi ngi doxal foofee sa Angleterre ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk kookee nga xam ne mooy gaynde Guédiawaye ñu gën ko si Balla moom Balla nag journal bi mi ngi ñuy ak moom ak Aziz Ndiaye nag teqalikoo nañu ginnaaw réew mi dañu jubale bitim réew ak journal bi ñuy wax Mundo Deportivo moom ma nga fësal FC Barcelone gii gannaaw bi nga xamee ni journal bi mi ngi ñuy xamal naanoo kii di FC Barcelone def na match sam bu mujj sa boobule tournoi boobee di amee foofee sa Las Vegas ginnaaw bi nga ni dafa dóor New York ñaari bal moom FC Barcelone gii nag journal bi ngi ñuy xamal naan noo dellu na foofee sa Espagne gannaaw bi xamee ni jugee na sa tournoi bu mag boobee nga xam ni FC Barcelone si la dóoroon kii di Real Madrid benn bal si dara moom FC Barcelone gii nag journal bi mi ngi ñuy xamal naan noo wane na boppam si boobule tournoi bu baax a baax daanaka bu doon élève buy def examen la mention très bien lay am moom FC Barcelone gii ba tey journal bi bi mi ngi fesal naan ñooñee nga xam ni ñoo ngee doog a ñëw sa FC Barcelone comme ku mel na Lewandowski wala ku mel ne Rafinha wala ku mel ne Kessié ñoom ñooñee wane nañu seen bopp bu baax a baax daanaka buñ doon concurrence anteeg ay jour ñoom ñooñee gañe nañu seen place ba tey journal bi mi ngi bind di fesal Angleterre googee nga xam ne moo gañe coupe d'Euro jigéen ñooñee day ame foofee sa Angleterre foofee sa dëkkam moom Angleterre gii nag Allemagne la dóor ñaari bal ci benn gannaaw bi nga xamee ne prolongation nañu mujje moom Angleterre gii nag gañe na coupe de Euro jigéen ñooñee bii mooy bi njëkk mu koy gañe si dëkk ginnaaw Mundo Deportivo dañuy des foofee sa bitim ak journal bi ñuy wax sport moom ma nga fesal l'international français bi ñu gën ko ma nga woon FC Séville na foofee sa FC Barcelone gannaaw boobu mi ngi yëkkati ay premier kàddoom ñoo ngi fekk si journal bi muy xam ne naan je suis pour Séville dama ñëw fii pour kookee nga xam ne moo tàggat waa FC Barcelone moo ma ñemeloo ba ma ñemee FC Barcelone gi ba ñëw moom Jules Koundé nag bu leen fàttalikoo ni moom contrat bi nga xam ne dox na si diggante jour bi ak FC Barcelone googee moom mi juróomi at la fa signé moom xaalis bi nga xam ne moo dox si diggante FC Barcelone ak FC Séville ba FC Séville nangu ko bàyyi mu ñëw FC Barcelone googee mi ngi toll si cinquante millions d'euros moom nag tegal nañ ko si juróomi million yoo xam ne bonus lay doon ñu leen di wax ni bu leen fàtte abonné ba beneen ak yeneen revue de presse jaa ngeen jëf